Luk saar bi Yeesu waxee la mu waroon a wax lépp ca kanamu mbooloo ma mu daldi dem Kaparnayom amoon na fa njiitu xare njiit la nag surgaam ba mu bëggoon lool dafa feebaroon bay bëgg dee bi mu déggee mbiri yéesu mu yónni ca moom ay yawut di magi dëkk ba ngir ñaan ko mu ñëw faj surga ba bi mag yi dëkk ba agsee ci yeesu ñu sàkku ci moom ndimbal ñaan ko ki nu yónni ci yow de yelloo na ndimbal ndaxte sopp na sunu xeet te moo nu tabaxal sax sunu jàngu noonu yéesu daldi ànd ak ñoom waaye bi ñuy bëgg a agsi ca kër ga njiit la yebal ay xaritam ngir ñu wax yéesu ne sang bi bul sanal sa bopp ndaxte yeyow ma nga dugg sama kër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 bi muy agsi ca buntu dëkk ba fekk ñuy rob néew boo xam ne kenn rekk la woon ci ndeyam di jëkkëram faatu woon te mbooloo mu bari ca dëkk ba di gunge soxna sa bi ko boroom ba gisee mu daldi koy yërëm ne ko bul jooyeeti mu jegeñ si laal jaat ga ñi ko jàppoo taxaw mu ne waxambaane wi jógal ndigal la noonu nit ka deewoon jóg toog tàmbalee wax yéesu delloo ko yaay ja ñépp tiit bay màggal yàlla di wax naan yenent bu mag feeñ na ci suñu biir yàlla wallu si na mbooloom lañu wax ci mbiri yéesu daldi siiw ci réewu yawut ya ak la ko war yépp taalibe yaxye ya nettali mbir yooyu yépp seen kilifa noonu yaxye woo ñaar ci ay taalibeem yónni leen ci boroom bi ngir laaj ko ndax yow yaa di ki war a ñëw walla dañoo war a xaar keneen bi taalibe yi agse ci yeesu ñu ne ko yaxya moonu yebal ñu laaj la ndax yaa di ki waroon a ñëw walla dañuy xaar keneen ca waxtu woowa yeesu nit ñu bari ci seeni feebar ak ci seeni metit di dàq ay rab tey gisloo ay gumba noonu mu tontu ndaw ya ne leen dem leen yax Yaxya li ngeen gis te dégg ko gumba yaa ngi gis lafañ yi dox gaane yi wér tëx yi dégg ñi dee di dekki te ñu woyoflu ñu ngi dégg xabaar bu baax bi yow mi sa ngëm yolomul ndax man barkeel nga bi ndawi yax yi demee yéesu daldi wax ak mbooloo ma ci mbirum yax ya ne leen lu ngeen seeti woon te màndiŋ ma xanaa barax buy jaayu ci ngelaw li kon lu ngeen seeti woon nag nit ku sol yére yu rafet waaye ñiy soloo noonu tey dund dund gu neex ñu ngi dëkk ci këri buur kon lu ngeen seeti woon yonent waaw wax naa leen ne ëpp na yonent yax male moo di ki ñu waxoon ci mbind mi naan maa ngi yónni sama ndaw mu jiitu la te xalal la yoon ci sa kanam maa ngi leen koy wax ci li jigéen jur ku sut Yaxya musula feeñ waaye ba tey ki gën a ndaw ci nguuru yàlla moo ko sut nit ñépp ñi doon déglu Yeesu ba ci juutikat yi sax dëggal nañu ne yàlla ku jub la ndaxte nangu nañu Yaxya sóob leen ci ndox waaye farisiyen yi ak xutbakat ya dañoo bañ mu sóob leen ci ndox di wone noonu ne gàntu nañu li leen yàlla bëggaloon Yeesu tegaat ci ne kon lan laa mën a méngaleel ñi ci jamono ji lan lañuy nurool ñu ngi nuroog xale yu toog ca pénc ma tey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 mu dem yóbbaale njaq lu ñu defaree doj wu ñuy wax albaatar te def laj ko leen bi jigéen ji egsee mu taxaw ca gannaaw tànk yéesu di jooy noonu ay rongoñam tooyal tànk yéesu jigéen ji di leen fomp ak karawam di leen fóon te ciy sotti laj koleñ ja naka la pharisien bi woowoon yeesu ci këram gis loolu mu wax ci xelam naan bu nit ki doonoon yonent kon dina xam kuy jigéen ji koy laal ak ni mu nekkee bàkkaarkat yéesu ne ca tonn daldi ne pharisien ba simon am na lu ma la war a wax simon ne ko waxal kilifa gi yéesu ne ko dafay amoon ñaari nit ñu ameel bor benn leblekat kenn kaa ngi ko ameel téeméeri junni ci xaalis ki ci des fukki junni waaye kenn ci ñoom mënu koo fey noonu mu baal leen bor ya ci ñaar ñooñu nag kan moo ko ci gën a bëgg simon tontu ne ko xanaa ki ñu baal bor bi gën a bari yéesu ne ko àtte nga dëgg daldi wëlbati ko ca jigéen ja ne Simon ndax gis nga jigéen ji dugg naa sa kër te joxewuloo ndox ngir raxas samay tànk waaye moom raxas na samay tànk ak ay rongoñam ba noppi fomp leen ak karawam bi ma agsee foonuloo ma waaye moom bi ma duggee ba léegi tàyyiwul ci di fóon samay tànk defuloo diw ci sama bopp waaye moom sotti na laj koliñ ci samay tànk moo tax ma di la wax ne su wonee mbëggeel gu réye nii dafa fekk ñu baal ko bàkkaaram yu bari waaye ki mbëggeelem néew dafa fekk ñu baal ko lu tuuti yéesu daldi ne jigéen ja baal nañu la say bàkkaar noonu ñu doon lekkandoo ak moom di wax ci seen xel naan ki am sañ-sañu bale bàkkaar mooy kan waaye yeesu ne jigéen ja sa ngëm musal na la demal ci jàmm